asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp mu mel ni am na mbokk mu doon laaj yenn ci njëriñu citronnelle am na bëggoon ñu ñëwal ko ci indi ko ci ay leeral am na solo citronnelle dañ koy boole ci xeetu naanaa yi rek waaw ci xeet googu la bokk waaw ndax dañ koy jëfandikoo kom nañuy jëfandikoo naana waaw naam sax boo demee ci dëkk asiat asiatique yi ñoom dañ koy jëfandikoo tamit ci wàllu wàññ seen togg yu bari dañ ko ciy boole waaw di ko sapalee togg moo tax ñu bëri dañoo jàpp ne fa la cosaanu moom citronnelle ñu bëri jàpp nañ ne Asie mooy cosaanam waaw ah, naan citronnelle réew mi ñu Lanka ñii naan déedéet Inde la waaye daal di leer ba leer moom mi ngi cosaanoo eh, bët saalumu Asie waaw ah, citronnelle fa lañ koy bayee fa lañ ko njëkk a bayee bopp ah, moom citronnelle nag mi ngi bokk ci genn ngiiru gàncax gi ñuy tuddee powasé ngir googu nag boo ca demee da nga ci fekk lu mat euh, fukki ju ak ñaari xeetu gàncax kon ngir gu xaw a yaatu la yi ci ëpp nag euh, yu mel ni citronnelle la ngir googu ci la li ñuy tuddee blé bokk ceeb bi ñuy jëfandikoo ci la bokk gàncax gàncax gi ci boppam ci ngir googu la bokk mboq ci ngir googu la bokk ak dugub kon nag moom citronnelle ci ngir googu lañ ko boole waaye ngir googu la ñuy tuddee poissé bëri na ferñeent nag moom citronnelle waaye ci gën a fës mooy lu mel ni vitamine B9 B1 ak B5 ak B6 ginnaaw yooyu it da ci fekk li ñuy tuddee géraniol ak li ñuy tuddee lool citronellol lool waaw géraniol boobu nekk ci moo tax moom citronnelle dafay aaree ci cancer yu bari waaw ferñeent woowu ñu tuddee gérandiol ferñeent woowu nga xam ne mu nga ca ba ba doy nga xam ne da koo bërile moom citronnelle moo waral ki koy jëfandikoo mën na mën nga mucc ci yenn cancer yi ak jabet waaw même bu dee diabète yi nga boo koy jël mën na wàcce sukkur si waaw ak yenn xeetu saan yi. tawati rhumatisme waaw te it boo koy faral di jëfandikoo doomi jàngoro yu bari duñ la dugg mooy yi ñuy tuddee bactérie ak yi ñuy tuddee virus te loolu géraniol bi nga xam ne moo nekk ci citronnelle moo ko jox njëriñ loolu eh, leen li ci nekkaat mooy li ñuy tuddee citronellol waaw citronellol moom tamit lu bari la ci biir citronelle moom da nga koy fekk ci lu mel ni muscade sax muscade bii ngay gis am na citronnelle comme ni ko citronnelle amee waaye tey citronnelle mooy waxtaan wi waaw citronnelle boobu nekk ci nag moo tax moom citronnelle dafa baax ci méttitu biir biir wuy métti ak lu ko mën a sabab baax ci yaram wuy métti baax ci ki amee jafe-jafe nelaw li ñuy tuddee insomnie waaye baax ci coono yaram. te moom it dafa bokk ci li wàcce suukar kon nag ci lu leer moom citronnelle garab la ci jabet ndax boo koy jëfandikoo mën na wàcce su suukar ba mu normal bu dee suukar su yéeg nga amee yeneen njëriñ yi ci nekk moom ci wàllu citronnelle mooy baax na ci pays xam naa bëri bëriwul liñ koy wax su dee nit ku amee pays la nga jox ko citronnelle mu koy naan da koy tuur ndox ba seen set wecc baax na ci am jafe-jafe tuur ndox ndax moom boo koy naan da lay tuur loo ndox baax ci wàllu stress baax ci tawati prostate yi moom citronnelle dafay dindi tamit cholestérol bu bon ci biir yaram waaw baax ci wàllu tension bu yéeg ba ci grippe ba ci yaram buy tàng waaw ba ci métti yi laal sofe sofe yi fu fu yax yi daje ak xeetu métti yooyu moom baax na ci ak méttitu ndigg moom citronnelle yooyu yëpp mën na ci dara ba ci tawatu estomac ba ci ki nga xam ne bu lekkee day day dafay yéex a rees mu amee li ñu tuddee ballonnement wala mu faral di génnee ngelaw te tayu ko te xam nga loolu daanaka jàngoro la ñi yooyu gàllankoor yëpp dañ leen di diggal ñuy eh, jëfandikoo citronnelle waaw te it dafay raxas biir yaram waaw dafay raxas biir yaram baax ci coono coonoy yaram ak coonoy bopp waaw xam naa bopp dina seen sonn waaw yooyu yëpp rek bu dee yaa ngi jëfandikoo citronnelle euh, mën na la ko fajal waaye baax na ci tawat yu dellu ci wàllu nooy yu bari mu tudd bronchite ak mu tudd muy soj saqat ak yooyu yëpp dañ ci digle euh, moom lii di si citronnelle jëfandikoo bi nag jafewul dangay tàngal ndox bu tàng sotti ko ci ub su dee am nga ci lu doy nii takk bu xaw a mag liitaru ndox su dee takk yu ndaw la mun nga def ñaar bu ñetti takk nga def ci liitaru ndox bu tàng tàngal ndox bu baax sotti ko ci kaw citronnelle bi ub ko waaw ci wàllu naan mun nañ ci jëfandikoo benn ba ñetti kaas ci bés bi ah kaasu kaas bu kaas bu yem rek kaasu ndekkeekaay bu yem rek kaas ndekkeekaay bu yem rek eh, ñetti yoon lu mu bari bëri ci bés bi waaw ah, boo ko defee yi nga xam ne wax nañ ko yëpp rek citronnelle mën na ci mën na ci dara kon nag nga dégg ci ne moom tamit eh, lu mat a bàyyi xel la lu mat a fonk la kon nag loolu mooy leeral yi ñu ci mën a indi xam naa balaa ma tëj rek ma fàttali mbokk yi may déglu hmm, man professeur Abbas sama garab gi nga xam ne yàlla dogal na maa ko liggéey eh, tuddee ko la roquette la roquette nag li muy faj mooy wàllu tële ci wàllu kër gi waaw góor gu tële néew kattan ci wàllu sëy hmm, bu dee dafa yàgg ci yow wala mu doog laa dal ak anam bu la mën a dikkee rek garab gi traitement la ci da koy faj incha allahu rabbi waaye yemu ci nag baax na ci seere ak ballonnement ak yaram wuy métti ak ak coono kon nag loolu mooy njëriñ yi nekk ci la roquette ñi ko soxla numéro bi mooy 77 786 65 19 77 786 65 19 incha allah ku ci woote rek dinañ la wax nan nga def pour pour nga am ci asalaamaaleykum wa rahmatullah